li mu gis mooy daan la rek la gis. waaye ñoom ñaar dafa mu leen boole. Hmm. man mii laaj naa ko magam Gilles Balde. Hmm. mu ne effectivement bëri nañu muuru daan ko Mbapat. kon ce qui veut ko que ñoo bokk même génération. Hmm. amaa dégg ci ay propos mu ne ko Modou tey yow bu ñekkoon ay màggat maak yow ma séen la sax ngay doxee beeke bu ñu dajee man ak yow dinaa nangu dinaa nangu say beeke sànni ko bëri ak yow. kon cela veut dire que revanche beng ci xol bi mais attention la daroon Eumeu Sène ci bëgg a bëreeg Modou bu mu ko xam nga des fois dama wax ne analyser làmb Sénégal dafa metti Eumeu dama jàng communication moom Modou Lo ne am mii ma gis li mu def ci xel mi bu jugul ci moom Irola des euh, maanaam de sérieux problème te loolu warul daal Ama Baldé ma Baldé sëll bu ndaw doomi faalaay la baayam bokkoon ci mbëri firdo yi dàqoon bëri ci amoon doole amoon ngemb lool gëmoon culture am moo loolu di doomi bàyyi góoram formé woo corog énergie ba nga xamante ne que fa la ñoom Moussa Dioum nekkoon ñoom Zos ñoom Garga ñoom jëf jël écrit ba xar dem rock énergie dem jur parcelle mbooloo jur jur dóor dóoraat moo du toog rock énergie di mbër moo xam ne damay wax ni guddul rëyul mais phénomène la xarnu bu ci nekk day am phénomène ci làmb Modou Lô il est le lutteur le plus aimé il est le lutteur plus populaire yàlla moo ko may loolu te ñàkkul faydi ci bis amul complex ci bis ku am fit ku mën a bëri la Modou damay ni Eh, bëreegul sax ba tey Modou ma nga xamoon Yves ca ba muy dajeeg Paul Maurice Modou ma daje woon ak Issa Pouye Modou ma daje woon ak Boy Boy Kayre mm-hmm. am fit bari doole mën a bëri loolu doot buy leew toog yow jël kanam gi sànni ko ne mel ni gisula la mm-hmm. ngay dajeeg moom muy waaf ci ay tànkam di wàcc mm-hmm. di pivoter di dem gauche ak droite Modou boobu la gars yi nam waaye na def très attention xale bi muy dajal yorul ngembal gone Ama Baldé ngembal baayam lay ngemboo ci làmb am na fit am na doole te sàcc li ci bëri mooy li nga dul sóor ci bëri rek la lay def def na ko fi Malick ñoo def na ko fi Tafaati li nga dul sóor ci bëri rek la def soo ñëwee ni tey day xeex bu arbitre ne prib génn sa diggante boo sëggee centimètre mu ngi ci say mu ngi ci say tànk donc amaali gars yi ñam la bëgg ñam mooy Pikine couronne bi dugg na fa ñaar yoon Mama Ndaw Taje ñam na ko euh, Eumeu Sène ñam na ko moom Ama moo ko war a ñam dugalaat ko biir Pikine te loolu la dig waa Pikine waaye est-ce que neex a faral dimanche mii ma xam est-ce que pare na pour bàyyi couronne bi en tout cas combat bu neex lay doon waaye bu ñu fàttali ni Modou ku mu tollool taay ak taxawaay balaa nga génn ci moom wax lu set wecc waaye moom it du mu ngi dégg bari xale bu dooj xale bu bëgg li mu yor xale bu ko yàgg diir xale bu ko soxla damay wax ni événement boobu ren la xaw ma diwén waaye il sera l' de l' année te ku koy tëggi ku koy tëgg du cuune chef wa lig ni ko ku xam événement la ku mën événement la ku mën a doxal bés la waaye waaye combat daal boo xam ne nanga nga jàpp ni Yves tàkkusaan googu day des ci histoire làmb ba kër adduna mm-hmm. parce que banlieue la Modou mu bàyyeekoo parcelle jaar ci corniche bi fële croisement Cambérène jàpp arène national Ama bal buy ñu buy jógee Pikine du jël oto day dox. day dox. 14h wala naan lewal ñoom booy ñaar dar ko. ñoom ama seen ñoom soq ñoom mam Balla deux ñoom jët li booy Pikine yooyu dar ko ak mafia am boobu mu waaxu ndànk dox jéggi corniche bi dugg biir